bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq bu baax di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal eh, di sant suñu boroom bu baax a baax ci lii mu ñu may ñu mën koo def tey doon ci wax doon ko waajal suñu borom may nu ko tey ko ciy sant bu baax a baax ci sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul nu yaakaar yi tey ak ëllëg sant soxna jaaratullaahi Mariam nga xam ne nun ñi moom la ñuy liggéeyal ci toolu lislaam bi di am mbégte lool nag ci dajeeg yéen fii ci jumaa ji ci lu am solo ci loo xam ne eh, yéen a koy def mu yoon woo xam ne ku ngeen xàll la mu yoon wu leer wu am solo eh, ñu xemmeem ko fas yéene ñëw ànd kook yéen mu mel ne daan nañ ko ànd ak yéen sax waaye ah, jamonoy Covid bi moo nu xawoon a baare bañ gëj koo def waaye nag ñu fas yéene tàmbaliwaat ko fas yéene ko ànd ak yéen ngir liggéeyale ko Serigne Touba ci toolub lislaam bi ndax ku ne xam na ne Serigne Touba jullit yépp rekk a ko taxoon a sonn mu mel ne lii ngeen di def nag. dañ cee gis lu mel noonu mooy dimbale nit ñi di leen jox dog te yàlla rekk tax ñu ñëw nag tuyaaba jooju ñu bëgg ci nag di ñaan nag ngeen ñaanal nu li nga xam ne moom lañ fi indi ci turu uh, Munawirul Bunyaan te mooy sëti Sëriñ Tuuba yi nekk ndakaar ñu fas yéene ànd ak yéen ci liggéey boobu di sàkku ngeen ñaanal nu nag ba yéene ji ñu am ci ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bii suñu borom dimbale nu wéral nu kàttanal nu te defal nu ay xéewal yu baree baree bari ba ñu mën koo ànd ak yéen nin ko bëggee te ñaan sunu borom mu nangul nu ko nangul leen te nangul nu ci barkeb Serigne Touba. ñoo ngi sant bu baax nag ñoo ngi leen di sant ki ci jiite ba ka ca mujj ci xàllawu leer wi nga xam ne xàllal ngeen du ko ban man cee jaar. di ñaan ngeen tase ceeg ngërëmul sëriñ li nga xam ne moom rek ngeen ciy wut ñu ngi eh, wàccee foofu kàddu yi eh, di wax de daal ñun ñii eh, ñu néew ñëw nañ ndax ngànt yu bari ngir am na journée culturel bu am Dakar bu sëñ ab sëñ sëñ Abo moom sañ Baara loolu lépp xaw nañoo bari ak ay ngant waaye ñu bari waroon nañoo ñëw waaye kenn ku ci ñëwoon rek teewal na mbooleem sëti sëriñ Touba yi nekk Dakar te ñu tudde leen mun naa wiral bunyaan jërë ngeen jëf sëñ Abdoulaat ma leen di santaat bu baax di leen ñaanal di sàkkuwaat ci ñaan yéen ñaan ñaan suñu borom mu nangu ñaan yëpp jërëjëf bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa eh, soxna jaara ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa bokk yi nga àndal ñoom ñëpp eh, di leen dalal fii ci jumaa ji ci seen barabu bopp seen barabu maam di di dalal it eh, mbooloo mi nga xam ne ñoo nekk ci seen ginnaaw muy Munawwirul Bunyaan te lëkkale sëti Serigne Touba yi nga xam ne ñoo féete fee ci sowu eh, ñëwoon fii tey ci jumaa ji doon indi seen barkellu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne Touba eh, ci jumaa ji ngir di dundal weeru koor di ko màggal comme ni ko sëriñ bi daa defee mu doon liggéey boo xam ne ñun ak yéen ñoo ci bokk yam dangeen ngeen ñëw nekkal fee ñu nekkal leen fii rek kon su ngeen amee gis-gisu gis ne liggéey bii kat seen jëf war na cee jiitu te jëf ji nga xam ne indi ngeen ko mu ñëw bokk ci jëf yi jiitu ci liggéey bi loola euh, dañuy rafet njortu ci ne euh, Sëriñ nangu na jëf ji rawatina gis-gis bi maanaam gis-gis bi ak xalaat bi mooy mooy li nga xam ne tamit rëy na ci ñun ndax ab soññ lay doon tamit ndax su ngeen nekkee fee gis liggéey bi jàpp ne kat yéen war ngeen a bokk ci ñi ko ñi ñi ñi jiitu ngir ñëw jëmmal ko loola dafa doon loo xam ne euh, jàpp naa ne tawféexi Sëñ Tuubaa la rek ko Cheikh Mamadou Mountakha di waxee euh, barki dem bi ñu demee ci sëriñ bi ngir mu yeesal ndigal li loolu la ñuy wax danañu lee ngeen di def day euh, tawféexi Sëñ Tuubaa ngeen am waaye jàpp naa ne ni ngeen koy defee sax mëneewu leen ko noonu waaye da ngeen am tawféexi Sëñ Tuubaa rek ndax soo nattee liggéey bi fi mu ne li fiy ñëw di fi doge di fi doge si barki dem bi ñu koy xayma ci daaw mën na ñeenti junni nit ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñett ndax lu ma téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñett bi ñu xaymaa li fi ñëw daaw mat ko te loolu ñu ngi koy nattale ci boo dee xool ci suukar daaw xayma nañ lu ma téeméeri saako ak juróom-benn fukk yoo xam ne suukare nañ ci loo xam ne boo xoolee litre yi muy yi suukar kenn xamul nombre bi nu mu toll soo dee xool ci wàllu li sunu yeneen mbokk yi sax ma bañ leen a tooñ di jëfan di gën a bëgg muy wàllu mburoog yooyu <laughs> daanaka man na juróom benn fukki junni ak juróom-ñeent maanaam 69000 et quelque ci ay mburu yoo xam ne jëfandikoo nañ ko loolu nag soo ko xayma lu néew néew li mum ñeenti junni ak juróom-benn ak fanweer ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñett ci ay nit te loolu lépp ñaar ci ñaar rek lay seddali ko am na ñoo xam ne dañuy dañuy bëgg ñëw ngir dogee si ci sëriñ bi am ñoo xam ne ay néew ju doole lañ dañ ko dul man niñ ko bëggee ñëw fi di fi doge si loolu lu am am solo la loo xam ne ku ci def sab dërëm wax dëgg yàlla euh, rafet nañ njortu ci ne def nga ko fii nga xam ne mat na ko faa def rawatina nag ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji rawatina nga nga dàkk mbégum sëriñ ci dundal weeru koor nga xam ne moom bu masaa ñëw day day bu masaa weeru koor masaa jub bàyyi na yitteem yépp ngir mal weer wi yaa xayra day fin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila hadadi te niñ koy waxee ci pay yi ko si suñu borom fay la bokk ndax ba mu nekkee ci géej gi weeru koor daa ko fa fekk dog daana jot muy rocc xobi garab ngir fexe ba dara jàll ci ngir mu am lu mu doge kon su fekkee ne ñibbisi na fii tey barab bii mu nekk nga xam ne moo ko gënaloon ci kaw suuf ginnaaw fa yonente bi tëdd mbooloo mu toll lu man ñeenti junni juróomi nit di doge si ci moom loola kon day wane ne Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa suñu borom day wane li mu koy fay rek saa su nekk te loolu lépp it fay gi ci ñun lay jaar kon am nañ tawfeex ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy jëmmal loolu am nañ tawfeex ñun ñi nga xam ne ñooy feeñal loolu kon yàlla sëriñ bi nangu jëf ji te gën leen a dëgëral wax dëgg yàlla ñi ngi gis jéego yi ci fépp ci ci fu nekk kon nag lii dafa mel day dolliku ci jéego yi rek kon yàlla leen ko yàlla gën a man te gën leen cee saxal te suñu borom fay ñu te eh, sekkil jëf ji te sakkanal ko te seytaane bañ cee amu yoon barkati xaadim rasul ñu ngi sant bu baax di gërëm daal ci turu daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Afee Buso mi ko jiite ak sëriñ Abdou Lahad Buso mi nga xam ne mooy secrétaire général bi kii sëriñ Abdou Xaadir Ñang mu sëriñ Moodu Maamun Ñang moom it bokk ci commission sociale sëriñ Abdou Xaadir Buso moom moo yor wàllu technique bi communication yaakaar naa da ngeen topp waxtaan yi ci eh, MK ak ci Lamp Fall yooyu yëpp dañ koy dañ koy direct waaw julli yi jumaa jeg yëpp dañuy gis dañ koy direct fi moom moo moo koy kor rek sëriñ Fàllu Mbàkke man maa jiite commission culturelle bi diine ji ak euh, tàggat gi ñu tàggat euh, nit ñi ci wàllu yar ak yooyu euh, liggéey bi daal ñoo ñoo ci bokk yam seenub liggéey la sunub liggéey la kon ni ngeen defit bég nañ ci wax dëgg yàlla yàlla nañ ko yàgg ànd barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu